bonsoir amis téléspectateurs salam alaikum, amis internautes TV bienvenue dans l'actu navétane résumé des Max sur Kebemer TV première scène digitale du département donc tey nekkoon 31 août 2024 ça, docteur Issa Mbaye Sambou doxoon ci diggante AIC Manko deuxième heure bi Digente, ci Ben Tali Darou Salam coup d'envoi première heure bi 18 h AIC Darou Salam ak AIC Manko ñu football 45 minutes match bi 2-1 donc dañuy bay ñu sétane le temps fort première mi-temps bi ta ñuy dellu Et voilà, nous avons euh, temps fort aux 45 minutes de Zéunjeki. Donc, Dohon, tu dis que tu as Djambar, Aïsé Manko. Ouais, deuxième bitambi, tu as Aïsé Djambar, Dadi Dougalat, euh, troisième bi, Matsibi, Djéré 3-1. Donc, vous avez déglou réaction coach Aïsé Djambar, Moussé Seck, qui n'a pas eu 6 points, la première place pour le Seb avec le coach Pep euh, Jacques Guardiola, bien sûr, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Alors pour ta deuxième sortie, donc euh, tu faisais face, bien sûr, à l'AC Manco et tu bats l'équipe donc sur le score de 3 buts à 1. Alors, une deuxième victoire pour toi. Quel est ton sentiment par rapport à tout cela Merci, Allo. Euh, tout d'abord, je félicite mes joueurs pour cette brillante victoire. Même s'il n'y a pas beaucoup d'intensité au niveau du jeu, mais l'essentiel a été fait, c'est d'avoir les trois points et c'est ce qu'on a fait. Donc euh, l'adversaire aussi n'a pas démérité parce qu'ils ont produit un beau jeu. Donc nous, à chaque fois, c'est ce qu'on fait. Hein. On essaie de se chercher et on se cherche toujours. On n'est pas à notre 100%, mais bon, puisque la semaine prochaine, on aura l'occasion d'avoir minimum une semaine euh, de repos, moi je pense que ce sera l'occasion vraiment de travailler avec l'effectif, de travailler la plus haut les renforcements, ainsi de suite, pour nous permettre vraiment d'être à top, même si on ne sait n'est pas à 60%, on va avoisiner au moins les 100%. Alors, euh, donc là, la qualification, elle est assurée. Maintenant, ce qui vous reste, c'est juste donc occuper la première place de la poule. Bon, de toute façon, on va y aller étape par étape. On va le faire match par match. Bon, on ne sait pas encore parce que nous, on a des concurrents qui sont à côté de nous, comme le euh, Darussalam qui a une victoire la fois passée et qui doit jouer tout de suite. Donc, nous, on compte qui allait étape par étape. Et c'est sûrement, si on y va étape par étape, on se retrouvera certainement, même si on ne sera pas premier, on sera devant, on sera deuxième. Donc on va tout faire vraiment pour ne pas avoir une défaite qui vraiment n'est pas du goût des joueurs ni des supporters. On espère vraiment satisfaire euh, le public, mais aussi satisfaire euh, nos dirigeants. Merci merci coach merci voilà mon une réaction coach sur ASC Jàmbaax Denis Deglou, réaction coach sur Manco. Manko ginnaw bi mu ñaké deuxième sortem dadi dernière place poule C. Nous taxaw ak coach ASC Banco, mi nga xamante donc mom mo daanu légui face à l'ASC euh, bien sûr euh, donc euh, Jambar sur le score de 3 buts à 1 coach donc sa deuxième sortie deuxième défaite D'après fay daldi compliquer encore un peu la chose pour toi mais quelle a été donc li nga xamante sa par rapport à sa prestation équipe tay ak li nga xamante donc yang koy deugmal donc les deux matchs qui te restent. waaw di sant yàlla d'abord sport di féliciter ay Jambar di wax sama jour jeexagul par rapport à li nga wax si défaite bi amuñu ci luddul regret regret rek lañ ci am pourquoi parce que on a bien préparé le match contre suñuy ay jour bon les lu ci war dal def nañ ko comme un bon match de football mais malheureusement day am ay jour sans nous avons deux buts nous avons deux buts à zéro donc après nous avons compliqué donc mais les gosses n'ont pas démérité. Mais encore, c'est possible parce que nous avons deux matchs encore. Voilà, deux matchs, oui. Deux matchs, contre Bentali et contre HLM. L'aimerait que Fides, moi, serrer la ceinture, procédure, nous avons avec Benen Kharkanam. Merci, coach. Et bonne chance donc pour tes prochaines sorties. Merci beaucoup. mu un euh, match première heure bi doxoon ci diggante ASC Jambar, ASC Manko 3-1 en faveur de l'AIC Jambar deuxième match bi coup d'envoi bi démarré 20h. Donc ci diggante AIC Benn Tali les rouges noirs ak AIC Darou Salam les bleu blancs donc AIC Benetali Tali moo remporté match bi 2-1 bi footballer 45 minutes 0 8 partout la def donc Denis Chetan, temps fort 45 minutes deuxième yu la la laataa ñuy Thank you, Ah, mu nekkoon euh, temps fort wu 45 minutes yu njëkk yi xawoon euh, am quelques difficultés si côté de équipe bi mais ci deuxième mi-temps bi euh, presque 61 minutes minute deux heures ci la ASC Benn Tali retrouvé filet yi dugal bi bi mu ngi noonu voilà mu nekkoon première but ASC Benn Tali deuxième but bi tamit presque 70 minutes deux heures cinq minutes écart ci la ñu dugalaat deuxième but bi bi moy nek nek deuxième but ben Italie de 0 95e minute 2h ci la Daru Salam am 1 match bi jexé 2-1 donc AIC ben Italie mo remporté premier match sam euh ci kanamu AIC Daru Salam 2-1 de dadi jël deuxième place pour C bi lolu mo jotona xew tay ci stade docteur Issa Mbaye Sambu waye dañi déglu réaction coach AIC ben Italie nous sommes avec le coach donc si Sissène, j'allais dire donc bien sûr Assurance Sénégalaise donc ASS. Alors il a assuré donc sa première sortie. Euh, alors première sortie Ben Itali face à Darussalam, Darussalam s'incline face à vous donc deux buts à un. Franchement l'Allemand s'est par rapport à cette première sortie et cette victoire Bingham face à Darussalam, surtout encore avec sa prestation jouerie. Waouh, alors déjà. di nuyu suñu journaliste yi di contane encore une fois bu baax nak ci <clears throat> victoire bi nga xam ci bentale mom la marqué parce que c'était pas évident ñu tok 4 ans ak liguey bi nga xam ci mom la doon liguey ñu ñew fi tay di tassenté ak darussalam di équipe bu mag di euh, sélection bo xam té mu jógee Dande Fall barki dem soté mu ñew dóor manko kon tay ñun quel que soit alpha rek dañoo warona euh, marqué point bi dóor 3 am 3 euh, points pour mëna a ci compétition parce que pool bi ñu bokk mooy pool de la mort te ñëpp nee nan benn tali day day day toog quoi donc ñiy wax loolu nag peut-être dañu xamul parce que benn tali mi ngi ci ruqam di liggéey te heure bu ñu ñëwee ci terrain bi dañ xam ne benn tali mi ngi ci ruqam di liggéey di remercier nag suñu supporters yi ak suñu yaay yi nga xam si ñoo nekk ci koñ yi ak suñu papa yi suñu frères yi nga xam si dañu def forte mobilisation tey ñëw accompagner équipe bi rien que pour may leen ndam donc loolu moom maa ngi bu baax baax waa koñ bi di remercier encore une fois samay joueurs parce que dama leen di yuuxu dama leen di saaga dama leen def lu nekk te pratiquement sama man a ñoom ñoo bokk génération mais dañ koy déglu déglu ma déggal ma te xam ni équipe lañ équipe bi dañ maa jël ni ma toogal ci bopp bi donc loolu Je très bien donc ñu rendez-vous certainement pour ta prochaine sortie Inshallah. mi ngi c'était le coach ASS bien sûr assurance mu Babacar coach Ben tali donc dem euh, réaction coach ASC Darou Salam bi nga xamné mom dafa perte deuxième sortie Bakar Mbaye donc coach de l'ASC euh, Darou Salam qui vient de s'incliner face euh, donc à Benetali sur le score de 2 buts à 1 coach donc vraiment ñu gis euh, sa prestation équipe malheureusement donc à la fin donc Benetali donc gagné 2 buts à 1 donc l'allemand ce sentiment par rapport exactement à la prestation de tes joueurs et au déroulement du match waaw ma ñu nuyu di sant ñëpp di féliciter samay joueurs xamné ne sport la des fois da ngay gagné des fois ñu gagné la wala nga match nul match bi nag joué noonu ko ci fair play xam nga mais nag problème mu arbitrage lépp gis na ni mu demee. mais ben, sant yàlla nii la mënoon a alors donc nga waré a encore mu déssé la ñaari match parce que première sortie victoire la won mu déssé la ñaari match donc da ngeen wat défor wat pour donc mën amate victoire certainement les deux matchs à venir Inshallah. waaw ñun mom équipe bi ñu yor chaque match ak ñu koy préparé. parce que compétition la nekk. sa championnat la. waaw match déssé nañ ay match quoi. des naan deux matchs, suñ karam Non préparé wat xamné li, day tax tamit ñu rectifier suñu erreur. xam li ñu manqué woon boo nous continuons à travailler, Inch'Allah. Très bien. Merci, coach. Merci. Boubacar Sam, mesdames et messieurs, donc, qui est le président de l'ASC euh, Darussalam. Boubacar, donc, euh, ton équipe sort aujourd'hui et tombe face, bien sûr, à l'ASC euh, Benetali sur le score donc, de 2 euh, buts à 1. Franchement, donc, Lolo Baniye Am. Waouh, allô, merci beaucoup, merci beaucoup de sa présence parce que sa présence nous nous ñor trop ci stade bi parce que am nga le dolli lu stade bi di wax à KMR TV ak suma gars yi nga jàkkaarloo parce que tey ñoom ñoo nu may li tax ñun ñoo opportunité ñu mën a taxaw tey pour wax àdduna di nu dégg. match bi nag nii la waroon demee gis nga des fois naan arbitre yi gis nga booy am nañ fi ay coow yoo xam ne te dañ lay wax ni la arbitre bi moom mooy yàq suñu ay match mais dama leen wax nii la rek arbitre day def erreur faralul kenn quoi. peut-être dugal nan bii mu bañ ko waaw dugalaat nan door nañu 2-0 dem nañ def le tout pour jëli ko jëliwaat ko yàlla dogal ni benn bii bi lan accepté mais dañ koy accepté quoi dañ koy nangu parce que tamit da doon dajek équipe boo xam nante ay équipe la nekk ay xale yu ndaw yoo xam nante tamit dañ ko bëgg comme yow yàlla defoon na def nañ suñ première sortie am vingt tey ñu génn ñu dóornu waaw dañ koy sant yàlla bu baax waaw di wax ni ñu ngi am la équipe bu mag bi na. mais Boubs ça va pas être facile parce que donc Jambar HLM ce sont des des équipes à battre ce sont pratiquement de très grandes équipes comme sa coach ni ko rek euh, vous semblez être dans la poule de la mort alors ça va être compliqué. non kooku nous compliqué ci ASC Darou Salam parce que ASC Dar Salam Jambar mënul nekk équipe bu mag ci kawam HLM mënul nekk équipe bu mag ci kawam bu ñuy wax wax ni Salam mooy équipe bi nga nous moo gën ci poule bi kon équipe bi nga xamante tey daf ko dóor damay wax ni équipe bu baax la ko parce que daf ko man parce que liir marche match bi seetaan ngeen match bi dóor ko parce que dafa danoo taxaw seetaan daf ko dóor parce que match nii lay demee parfois ay erreur day am pour nga mën a ñàkk yenn match mais nag da war a xam ci compétition lan nekk ku ne da koy nangul victoire dama leen wax bi gëpp parce que suma ay jarbaat ñoo fa nekk yaa yaa ngi xam waaw Daaru Salaam ma leen wax ni tamit waaw di courage quoi neexoon na démb tey bu naqaree nan kontaan ñun ñëpp Aldo yow content nan ci yow content ci TV content ci suma taxaw ak ñu ngi ci big up quoi. franchement parler c'était bien sûr le président donc de l'ASC euh, Darou Salam qui prépare encore donc sa prochaine sortie inchallah en tout cas on te donne rendez-vous donc euh, euh, très prochainement. contre je pas trop Jambar ou HLM quoi qu'il en soit on te souhaite une victoire. alors c'est parti mesdames et messieurs merci à toutes et à tous. voilà nekkoon réaction coach su ASC Daaru Salaam kon xam naa foofu la koy yemale ak ci nawetaan bi ba ëllëg inshallah tableau bi poule C ASC jàmbaar moo nekk ca kaw am 6 points ASC benn tali topp ci am 3 euh, points ASC Daaru Salaam topp ci am 3 points aslem topp ci am 0 point Manko topp ci am 0 point donc donc ASC jàmbaar moo nekk ca kaw le programme bi ëlëk ci estate docteur Issa Mbay Sambou le 1er septembre 2018 18h jotté IC boku xalat dina tassé ak IC Espérance deuxième heure bi ASC Laman gi mo wara jakarlo ak Jamono mu première sortie Aïsé Laman donc demain, inshallah, lolou mo wara Estat xew docteur Issa Mbaye Sambou. di len jaajëfal bu baax a bax sen and ak TV donc merci d'avoir suivi Actu Navetan, le résumé des matchs restez connectés à KBMR TV pour ne rien manquer de cette saison palpitante de Navetan à la semaine prochaine un nouveau récap des meilleures actions de nos terrains. Merci à vous.